loolu lu yomb a démontrer la scientifiquement médecin baa ngi ni toog dina xam dina ma mën a corriger su ma juumee mu ne par exemple tey ver kaasab verre mu ne verre suuf lañ kay defaree nan lañ koy defaree suuf maanaam dañuy jël suuf si lakkaka du xeeti suuf yam rek jël suuf sa lakkaka ba suuf soosu seey bu seeyee nga seddalaat ka ba mu sedd si ngay door a mën a am li nga xamante moom moo di veer nga xamante ni lumière dootu ko mën a traversé si kaw loolu mu ne veer boobu boo ko jëlee boo ko tegee est ce que di nga si gisati ay suuf loolu doo sa gis te cosaan li suuf suuf la mu ne doomu aadama tamit noonu la mel yàlla si ban la ci bindee waaye bi yàlla di wax naan xalax naaw min turaabin doomu aadama ñu ngi ko tàmbalee bind si suuf ba mu demee ba sa biir am wa an sonaahu xalqan aaxar ñu soppi niñ ko bindee woon mu ne kon soppi bi ñu soppi veer ba nekkatul suuf sagam doomu aadama moo man loolu ma samax yàlla mi sàkkoon doomu aadama si suuf cosaanam ba nga xamante ni dootoo bu doom bu màggee dootoo gis si moom ban bi nga xamante ni moom mooy cosaanam kon góor ak jigéen ñoo bokk fi mu jóge jigéen ñi nag la nax leen ne leen ñu ngi leen bind si feeru faaru càmmeen دين الإسلام دين النخ فين بندي غور فين بندي جيل نحيا ربي وح آية بدنا وخلق منها زوجها ها بوب إمام أستاذ حنا اللي ما يوم يدير نفس نخ نفس مؤنثة كن من نفس النفس لين بندوي وخلق منها زوجها من نفس واحدة وخلق منها زوجها زوج من زوج آدم كن جيل فين بندوي سبحانه وتعالى li seen cheikh waxoon radiallahu anhu nee na ñi doon théoriser naan nit cosaanam golo la ba am ñu ko gëm di ko jàngale si école yi nangam mu ne moom dafa am problème golo yu njëkk yi fexe nañ ba nekk ay nit te golo yu léegi yi ba léegi mënuñoo doon dara wax na dëgg ne ñoom fexe nañ ba doon ay nit golo yi mujj moom ba tey ñu ngi nekk ay golo rek loolu doy naa kon doomu aadama alquran ak yonent bi sallallahu mu ngi tànnaloo nit mu yor doomam fa muy tànnee jëkkër ak fa muy tànnee soxna yàlla ne yow bu dee ku góor gi jeunes yi nag waroon nañ fay bari malheureusement ndax ñu gën a mën a kafin mais ba tey baa fi ñi si ëpp am nañ mais bu ñuy waxtaan ak ñoom bàyyi xel aspect boobu dane tunkahul mar'atu li arba'in ñoom sama sam nee na booy takk soxna bu la ne ñeenta ñi nii li maaliha bu la neexee nga ne xale bi banquière la bureaucrate la hôtesse de l'air la directrice la entrepreneur la am na xaalis nee na bu dee loolu moo la si dugal nee na bu la neexee amul problème li xasabiha wala li nasabiha bu la neexee nga ne diw ak diw ñooy ndeyam ak baayam yax bu rëy la nekk nangam d' am nga si am nga si droit waaye xamal ne ñun ñëpp su maam aadama lañ jóge te ñun ñëpp si biir suuf lañ jëm te kenn gënul kenn kii gën si nit ñi mooy kii gën a ragal yàlla beneen bis des li aliha bu la neexee nga ne dafa rafet am nga si droit waaye ab taax bu wëli naa koy faral di waxtaan si conférence yi may def yu bëri ma ne tey suñu yaay yeeg ya, suñu bàjjen yeeg ya, suñu tante yeeg ya, suñu maam yi bu ñu la waloon seen ay photo bi ñuy am vingt ans vingt cinq ans da nga naan du ñoom suñu liggéey yi bu ñu lay seen photo bi ñu nekk adolescent da nga naan bu ñoom waaye jamono loo gën a dox di dem rek am loo xam ne da ngay dab te bu la demee dina la jàpp te bu la jàppee doo rëcc jaraaf bay ngiraan yàlla na ko yàlla leen daan na ma ko wax oustaz ma ne la bay télé télé télé télé day ñëw man man personnellement ma gisee ko am sos au delà de soixante ans su ma la gisee rek li may njëkk xalaat mooy sama fit dana bés man sama soixante ans lan lay mel nga gis ko amoon trente cinq ans gën laa dëgër nangam dem après bi ñu commencé wadda soo guddee fan bi ngay ñaan fa nga jëm gis-gis bi su ma tikkee samay limite nii nii nii moo xoolee sama téléphone du ma gis li fi yàq te dama dama dama toog di jàng lu mu sew sew dama koy lire lu ma médecin bi waxoon bi ma ne cinquante ans mu ne ma du cinquante de quarante ans boo ko amee rek yëf yi day commencé wàññeeku ma ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jàngale woon du deñ dama gis benn xadis fi am rek takk te foofu di la si 40 ans koo ko amee sa doole dootul yokku ba ilaa yawmi diin day wàññeeku kon bu la neexee dafa rafet mun a takkal amul problème waaye waaye nag fanfar bi zaati diine tamit ba tey tam yow François nga ne yow ku góor gi boo sa doom éducation bu baax tànnal ko yaay joo xam ne dafa am diine kon. critère bi yow papa pour sa doom am une bonne éducation jox nañ la ko mooy nga utal ko yaay ju am diine waaye itam ku jigéen ki nga xam ne wala parents yi nga xam ne dañu am doom ju jigéen am ku ñëw bëgg seen doom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bul set alal bul seet ab juddu bul seet nangam xam nga lañ ngay seet mu ne ay ah, mu ne idaa raaytum man tardawna diinahu wa xulqahu fa zawwijuuhu bu ngeen gisee koo xam ne diineem ak jikkoom rafet na doy na leen bu ñëwee bëgg seen doom may leen ca nit nag dafa lëndëm waaye am na loo xam ne dafa dafa dafa yaakaaru ndax tey diw nangam lay liggéey diwu moom moom entreprise nangam diwu nangam baax na waaye tey man ngaa may sa doom koo xamante ne ni bu si duggee souffrance ba muy souffrir na la ko yàlla nëbb démb démb démb si guddi diggante topp biñ dogee ba avant neuf heures dafa am sama benn xame bu ma woo gëj naa gis benn yoon laa ko mos a gis mu ngi dëkk fii almadi man ma oustaz man kaa man ma fan yëpp maa ngi lay oo rek jotuma la yaayam arabisante la dëkk Touba ma ne ko dama xat mu ne ma dama ko soxla ma ne ko bismillah si gàttal daal may nañ ko koo xam ne gàtt gàtt gàtt gàtt milliardaire la R plus nangam immeuble bii moo ko moom R plus nangam mu ngi tabax R plus dix almadi porte yi rek cent trente millions la jox nangam wax ba yeggal ma ne ko léegi luy problème bi mu ne ma sëy ba am naa si doom ma ne ko waaw ma ne ma bi ma duggee si kër ba tey du xëy ba jox ma ndékki mané ne ko ahbab mu ma dugg naa ci kërëm ba tay weer wu jot ñeenti junne la may jox ne ma mooy sa argent de poche mané ne ko ahbab mu ma bima amé doom mu tegal ma ci jullé mané ko jullé bobu sa doom ak mom sama xam du ko yow mune ma ba tay mané ne ko ahbab mu ma day jaay ay tissu ma gis tissu bu rafet mané ne ko bii dama ko bëgg jëndal sama yaay ndax da doon liggéey ci waaji bi ba waa gis ka li may kaka dañu leen baax mu ñëw nekk tissu lu muy jar mu nekk ah xamoo li muy jar mu nekk cinquante cinq mille lay jar sama yaay laa koy jëndoon ndax dafa rafet mu nekk waa baax na ndaw si nee ma génne fukki junne naka am léegi dama koy jël après jox ko yaay mu nekk boo si tegul junne bu ko laal si yaayu njabaram la jëm ma nekk lii feebar la Cheikh Mansour nee na kooku du joxe asaka ndax xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli la lu mu yëkkati jox la ko yaa si war a jiitu ndax soxnaam nga kon diine ak jikko diina ji moy di nga gis mu julli di nga gis mu wor di nga gis mu nangam way yor ay milliards sa jabar do ko jox ndekki ma nek kon jikko mo rafetul moy li dal nit yi rek rek ci jakka ji nga dugg yor sa portable allahu akbar man la làmba do ko gis te bi ngay dugg mu ngi ci jakka ji kii nga jël yena a do do jarul sori kon yow fa sa dafa wax ne ku len naw jikko ak diineem kon jikko ji ak diine ji day ànd yow miy bëgg utal sa doom bàyyi boo xamante ni da koy yar yar bu rafet xoolal diine ji xoolal itam jikkoom ndax ndax nekk na loo xamante ni lu lu lu lu lu rafet la moo tax nee nañ ndaw sa bi doom ji amee ñaari at ñaari at la am ñetti at dama bëgg nga yaral ma ko mu nekk c'est trop tard mu dem amaat doom mu fer mu nekk kii fer na démb lu mu bëgg nga yaral ma ko mu nekk c'est trop mu demaat amaat doom ay at ñëw na te kii démb la juddu tuddee buñu ko lu bëgg nga yaral ma ko mu nekk c'est trop tard mu nekk bu ma jaaxal kii démb la nekk la taare mu nekk yar ba mu ngay tàmbalee sa ba nga koy tànnal bàyyi foofu la yar ba di tàmbalee kon base bi mooy yaay bu baax ak doom ak baay bu baax léeg-léeg nag nit dina ñëw wan la jikko joo xamante ni du jikkoom ci li nga xamante nii moom mooy base bi wax naa la ko da nga koy tànnal yaay ju baax yow ku góor ki yow ku jigéen ki da nga tànnal baay bu baax boo demee ba ku nekk tànnal sa moroom am yaakaar te yàlla rek tax nga dugg si ak jikko ju rafet yoo xamante nii moom nga naw si ki nga nekkal am yaakaar bu ngeen amee doom yàlla def si Euh, barke comme ni ñu koy waxee ak ak ak yar boo xamante ni bu mucc ayib la bi ci des mooy màgg na dugg ngeen ci bi doom juddu na màgg na am na ak am na ñaari at comme léegi xale yi ñaari at ak génn wala ñetti at ñu commencé dem crèche ainsi si suite xoolal école bi nga xamante ni fan kay dugal lu tax. parce que yow yaay yow baay si kër gi ngeen nekk fa ngeen tàmbalee waaye day génn moom après dem sàkku ji xam-xam te xam-xam bi nga xamante ni moom lay dem di sàkku ji fa mu koy sàkkoo dafay fekk ñoo xamante ni moom ak ñoom bokkuñu environnement bi ñu juddoo wala bokkuñu environnement bi ñu leen di yare wala bokkuñu environnement bi nga xamante moom la màcc li gën ci julit bi comme jamono dox na boo ko mënul dugal mu jàng alquran kese fexel muy jàng alquran ak science moderne quand je dis science moderne mooy français si gàttal ndax ñaar yépp baax na waaye li tax ma jiital alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngaloon ne xayrukum man taallama alqurana wa allamahu ki gën si yéen mooy ci nga xamante ni dafa jàng alquran ba pare di ko jàngale lu jàngale mooy tey yow baay bi wala tey yow yaay bi say wéy fexe nañ ba nga mokkal fatiha say wéy fexe nañ ba nga mokkal saar yooyu jullee say wéy fexe nañ ba nangam loolu itam yow bor la boo xam ne da ko war a fay sa doom ndax bariwaay na tey si jamono ji ñoo xamante ne nii dugal nañ leen école française ce qui est bien parce que xam-xam lañ fay jànge tey oustaz bu feebaree day dem seeti ci docteur docteur li jàngam ni ñu ko jàngee ci langue française xam-xam bi rek moo am solo làkk boo ko jàngee baax na tey jii nii boo demee Arabie Saoudite wala nga dem feneen médecin yi bu ñu lay consulter si xam-xam bi langue arabe lañ ko jàngee bu ñu lay consulter ordonnance bi arabe lañ koy bind boo demee pharmacie garab yi arabe lañ koy bind kon langue bi importe peu li am solo mooy xam-xam nga xamante ni. moom nga si moom nga si moom nga si jàngee nga dugal ko foo xamante ni dina jàng xam-xam xam-xam boo xamante ni dana ko jariñ waaye itam dana jariñ ñi nga xamante ni itam ñoom la yàlla dogal mu bokk ak ñoom li nga xamante ni moom moo ji penc bi waaye si mooy xam-xam boo xamante ni jariñ lay doon àdduna ak àllaaxira waaye itam dana mën a defaraale li nga xamante ni moo di moom moo di jikkoom ndax bu ñuy wax yar jikko ju rafet moom moo war a nekk li nga xamante ni tey jii moom moo di finalité bi kon jamono dox na xale yi dañ leen dugal ñu jàng xam-xam bu moderne comme ni ñu koy waxee fii école française waaye itam bu ñu fàtte aspect bi nga xamante ni moom moo di aspect diine bi ndax dara gënul ñaaw si ab jullit boo xamante ni faatixam mokkul wala jullit boo xamante ni xamul yenu saar lay lay lay lay jullee te message whatsapp bu ñu ko yónnee dina ko lire whatsapp yi yoon du laaj kenn code bi Wave kenn du ko dugalal code bi moo koy dugalal boppam waaye bu dee xam-xam ak lislaam wax nangam ñoom ñu bëgg kaa tegee nële ne garaawul bu ma demee ba nangam te am na foo xam ne boo fa tolloo si at loo maratul woon moom si jàngaax mokkal bay boo nga jëm kaa teg si suuf ndax li ma waxoon sànq dab na la si sam xel télé kon aspect boobu itam dafa nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la tànnal nga ko ndey bu baax tànnal ko bàyyi bu baax dugal ko mu jàng itam li nga xamante moom moo di diineen parce que solo solo na ne ki gën si yéen mooy ki nga xam ne dafa jàng alquran di ko jëfee waxuñu waaye di ko jëfee ba pare itam di ko jàngale kon léegi idée sax ñu bari ñu koy def am njaboot ñu am benn âge bi ñu yóbbu leen ñu dem internat ba mokkal alquran alquran jiitu seen dënd ubbi gën a ubbi seen xel après ñu bëgg leen ñu jàngi xam-xam bi nga xamante ni moom la ñu moom la ñu soxlaa si si si ñoom loolu itam mooy premier point bi nga xamante ni ginnaaw tànn na ngay wax bàyyi ju baax mooy xam-xam bi nga xamante ni sa doom mu ngi koy jàng mu nekk xam-xam boo xamante ni bu baax la waaye itam nekk foo xamante ni dañ ko fay yare ndax jàngal nit ki ak yar nit ki bokkul jàngal nit ki ak yar nit ki bokkul léeg-léeg yi fi xewoon ak fan yi passé yëpp ak bés yi passé ak yi passé nit yi gis nañ ca ay nit ñooy fekk ab université taal ka xëy na ñu jàng ñi nga su ne jànguloon nekk ko ca waaye ku ñu yar bu def lu mel noonu ku ñu yar laa wax mu def lu mel noonu parce que sa base d'éducation ak loo mer mer mer mer mer mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon laysa shadidu bi surati ولكن الشديد من يملك نفسه من الغضب يرد فاصل من ام دول neena am doole bu sa yo ko mané rek wané ka nga am lolu nakhari nga jël ko muñe ko yalla te yalla rek tax bo nga fañé violence mo xam verbal la mo xam moral la mo xam mo xam mo xam euh, euh, euh, physique la benen bi moy fa nga duggal del xol ka kay jangal ndax lan ka sante pour mu jangal ka mu ngi ko koy jàngal ndax yar bi ngay def si moom si kër gi bu demee foofu duñ ko changé waaye itam bu demee fa muy jànge ñan lay àndal ñan lay waxtaanal ñan lay fréquenté lu tax bari waaye ne ku am doomam wala amub sëtam di def si moom lu mu man ak lu mu manul pour mu yaru waaye saa yu génnee si mbedd mi rek for benn jikko boo xamante ni bu ñëwee si kër gi bu defee wala nga wax rek nga ne kii de man ni mu mel nii xaw ma fa mu ko jële parce que xam nga ni jëlee ko si kër gi kon bu dul si mbedd mi rek fi muy jàng loolu buñ si duggee dañuy ñëw si itam kii di jàngale moom itam dafa am responsabilité si njàngale mi waaye itam dafa am responsabilité si yar bi mu war a yar xale mi exemple yow da jàngale saa yoo jàngalee ba mu neex la rek si biir classe bi nga jël sa cigarette taal yor ay xale. ëllëg boo dajeex ab xale ci say élève muy tuux loo koy wax damay laaj waaw la suma suy xanaa nga koy wax parce que yaa ko jàngaloon bu dee ku jigéen da ngay jàngale boo jàngalee ba mu neex la moo xam cours particulier moo xam leen nga génn sa potob diw diwu wala jël sa kanam maquillage maquillé waat sa kanam si kanamu élèves yi bu ëllëgee boo rombee élève bu am quatre ans cinq ans wala dix ans di koy def loo ko koy teree loo koy wax lu dul leçon si waa ñu dafa ñëw ñu ne ko sa doom day tux lii may wax yox jii la xewee mu ne tux ñu ne waaw mu ne ba mu ñëw fi kaas mi nangam doom ji ñëw mu ne ko mu ñëw mu ne ko yow dégg tux suuf dafa baax nangam ah bay xew na bay tuux dóor mbet mu nekk yow da ngay tuux waaw mu ne papa ji yow da ngay tuux parce que papa ji day tuux si kanamam mu koy gis kon liñ naan lu waay di di wuyoo da kay da kay niru bëggoo sa doom tuux bul tuux si kanamam bëggoo sa élève di tuux donte la da nga koy def bu ko def si kanamam parce que boo koy def si kanamam ku nekk xam na ne ab élève ki koy jàngal toujours da koy jàppee idool maanaam mën na ko faa sax ba lu mu ni muy solo sax muy solo noonu ni muy doxee muy doxee noonu ni muy waxee muy waxee noonu kon li muy jëfe itam xale bi bu ñëwee fekk lu yaayam def su ma wax baayam sa biir kër ga yow mi nga xam ne yaa koy jox xam-xam war ko yaraale boo ko joxee xam-xam am na doxin boo xa ne boo ko di doxalee rek moom day jàppale yëf yi noonu la te fekk ne du du du du du du du du noonu loolu tamit jërë bàyyi xel la kon éducation bi yaay ji am na si part papa ji am na si part ki koy jàngal am na si part mbedd mi itam am nañ si part war ngañ nga fexe ba ñi muy dajal si mbedd mi itam bu ñu ko def wala bu ñu wax si kanamam loo xamante ni mën na ko for yóbbaale ko si këram ndax ñun ñëpp amul kenn koo xamante ni bëgg nga ab sët wala doom joo xamante ni dafa dafa dafa sofaan toujours ku baax nga bëgg di am ku yiw nga bëgg di am koo xamante ni amal njëriñ amal boppam njëriñ amal itam askan wi mi nga xamante ni moom moo di moom moo di njëriñ beneen bi bu demee ba tollu fenn fi def douze ans quinze ans war jël de la puberté moom nag yar bi dootul nekk ay toogal jógal génnal déedéet chiwaar lay doon jalo waxtaan sa doom am na fu muy da ngay waxtaan ak moom parce que dina jur sa doom mu am 15 ans nga am loo ko sant mu bañ moo xam yaay nga moo xam bàyyi nga nga dóor ba tël mu taxaw xool la fixé la te du wax waaye di nga xam ni mu bëgg wax mooy dépassé naa lii balaa ngeen a yegg foofu nag da e ngay jaww ak moom di waxtaan ak moom naakaan ni ngay defe du nii lii baaxul bu dee ku jigéen la nga ne ko moytul ku góor bu la joxe loxo sax nga am doom foo seeni ku góor dawal di ko def loolu si xelam kooku boo koy wax mu màggaalee loolu fu mu seen góor dootu fa taxawaal mais tey bu fekkente ne daf sa doom jigéen ñi nañ ma baal ndax si ñoo ëpp si ñoom dinaa ñëw si góor ñi sa doom li muy sol gàtt na Mansour li muy sol xat na li muy sol yaraax na bu la waxee nangam nga ne bàyyi leen da si tollu nit ki bu loo toll rek dañ koy def da si toll mais nag toll si lu yiw du ñu ko def léegi nga toog si mbedd wala nga toog am ko la romb sol loo xam ne te génnewuñu si géej gi génnewuñu si àll bi si kër yi la ñuy yaay bu wax bàyyi bu wax ba pare ëllëg nga bëgg si moom ndam waxuma doo ko am waaye mën naa jafe parce que bariwaay na ñoo xamante ni toog nañ seen i rangoon génn te seen doom ñoo ko génne olof da ne rangañu xale moo gën rangañu mag maanaam di ko jubbanti di ko yar. di ko orienté bu bu ëllëgé du la def wala mu wax la lo xamante ni saw ran lañ mëna sé mëna sé mëna sé tour benen bi muy lu am solo sa doom bu jigéen itam xoolal fi muy dugg xoolal fi muy génn xoolal ñu muy fréquenté ndax échec mënul wéssu nga ëmb doom juróom-ñeenti weer yaay yi ñoo si ëpp ndax ñu bari na si ñoo xam ne tey ay père de famille lañ waaye kenn du yaay si doom ñun góor ñi xam nañ ne sax yaay yi am ñu morom te ñun ñëpp am Enggak, ñuy bàyyi nga échec mënu la weesu nga ëmb nit juróom-ñeenti weer muy màgg nga koy xool di ko nàmpal ba mu toll fenn fu ñu la waxal sa doom nga naan mënal ma ko dara foo nekkoon koo xam ne yaa ya, ko ëmb yàlla daf nga mu di ko nàmpal di ko xool muy màgg ba am nangami at mu def lu deful ñu la nga dama loolu ma ko dara lan la échec la wala fuite de responsabilité wala lan la amna na xamanteni bo ni ko doxale sa dom si ay beut nga koy xol ba nga xamanteni ni même bo fa nekul am na xamanteni xamante du du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko exemple man naa jël exemple si man tonton ji mu ngi nii toog yëfi xalé terrible nangam sangam léeg-léeg mu def la lo xamanteni da ngay defe da la bañ mais bo magge ngay comprendre moom lu la lima ma koy wax chaque jour ñu ak ñoom ñëpp ci nijaay yi fi toog ndax fi lañ màggee fële lañ yaroo naa la bu ngeen fekkoon ngeen di quinze dañuy quinze bu ngeen fekkoon ngeen di sàcc dañuy sàcc bu ngeen fekkoon ngeen di màndi dañuy màndi te loolu mooy dëgg ak suñu yaay yi maanaam nit ku nekk ni olof bi wax butéel bu nekk ni mu def loolu la sàmm bi di xëy léeg-léeg nag di nga jéem a yërëm sa doom wala sa jarbaat wala sa nangam ba naan dama ko ñeemante nangam fekk yaa ngi koy yàq yar bi nga koy yar dañ koy dimbali ngir ëllëg

mu ne ko non Mouhamed la tudd de mu ne ko pourquoi ta bière bi là-bas et Assane m'a dit que c'est interdit par l'islam mu ne ko eh, ici boire bière normal normal mais tubaab dem nañ ci ba lu ne def na ko pour ma ñëw donc pour wax la ne àddina dafa am loo xam ne boo ko defee ci sa njaboot ci lu baax doo ko rëccu waaye itam dafa am noo xam ne boo ko seetaanee si sa njaboot bu ëllëgee bul yedd kenn yeddal sa bopp te Seydina Omar radiyallahu anhu waa ji bi mu amee doom mu ne si koñ bi lëmbe koñ bi bu ñu nangam bàyyi leen jàmbur ma doom nangam ci kenn du laal bés ñëw doom ji jàppal bàyyi bi defal ko bagage mu ñëw ne sama doom dafa réew man li ma ko jur defal nga ko seede nga si kenn gënu ko école bi muy jàngi kenn gënu ko nangam te mu may toroxal mu ne ko yaay jiwoon yaa ngi na góobal sa kaam yi nga di wax moom lañ lay fay nekkati kon yar bi liñ siy déggee mooy yar bi ñuy yar suñu doom après day ñëwaat si ñun waaye itam seetaan bi ñuy seetaan suñu doom après day ñëwaat si ñun te loolu dafa nekk loo xam ne ñu bëri duñ ci conscient dañuy defee ne daal xale bi nu mu mel rek bu baaxee bu ëllëgee bu kër di am moom mooy tabaxal boppam kër buy jëndi oto mooy jënd boppam oto nànkam te yooyu yëpp boo ko seetaanee bu ëllëgee mën naa dugg si ay jafe-jafe yoo xam ne boo moytuwul sa kër gi nga ko jaay ngir ay problème am moom te doo xam foo koy waxee ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak mooy kon dialogue bi dafa war a nekk loo xamante ni lu permanent la diggante waajur yi ak doom yi bu fekkente ne am na benn âge bi bu dialogue weesoo nag après nga dindi indi laaye biir laayante biir bi mooy du ay dóor du ay xas du ay saaga. rafetul nga am njaboot yaayam taxaw ba yow yaaya papa ngeen taxaw njaboot taxaw ngeen di wax ba kàddu di jóg ba ay saaga du si jib loolu du lislaam rafetul sa doom taxaw na nga dañ ko bëgg a yar ngay jël loxoom di ko teg si kaw yaayam kenn bëggul ku door sa yaay dëgg la sa jabar la lislaam nee na la jabar kenn waru kaa dóor am nga alquran boo demee da lay wax mu ne la ñi nga xamante ni wallaati taxaafuuna nusuuzahunna ñi nga xamante ni yàlla nee na da ngeen ragal ne ñoom daal ba nga xamante ni bu ngeen seetaanee tuuti rek caaf mën yàlla nee na am na si ñoo xam ne si jigéen ñi na ngeen leen waar li baaxul yedd am ñoo ñoom rek ñu ñëwaat am na ñoo xamante ne nii bu guddi jotee wan leen ginnaaw boo ko defee ñaax ñetti yoon mu jàppoon dinañ ko bàyyi. am na ñoo xam ne na ngeen leen dóor luñ jàppoon nañ ca bàyyi dóor boobu waxuñu nga jël sa loxo di ko dóor c'est au sens figuré c'est pas au sens propre ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñu yàlla royloo lu ne dund naka ak ay soxnaam ñu def ko lu ne si biir kër gi ba yàlla menacé leen ne leen bu ngeen ko bàyyiwul li ngeen ci def dinaa ko wax yéen ñëpp mu fase leen mu utal ko ñu leen gën a baax gën leen nekk ay xale gën leen gëm yàlla gën leen rafet gën leen taaru ba pare nekk ñoo xamante ni ñu macha allah la te mosula jël ab loxom boobu benn soxna yow nga bëgg a jël nga ne da ngay yar sa doom di dóor yaayam da nga bëgg a yar sa doom di di xas baayam da nga bëgg a yar sa doom di móolu baayam fan lay yaroo mu koy dégg mu nekk mat di ko gis koku bes bu boudé wala bu ëllëgé bu démé bu défé leneen responsabilité yi day incomber papa yi ak yaay yi parce que ñooy jangal doom naka sa dul noonu te bu ëllëgé bu dee ku la bu amé doom bu amé jabar bu koy do yow lo koy wax da nga naan bul doon sa jabar da nga dóor yaayam ci kanam mom ay yoon wala bu dee yaay jabar di ka sa sa sa doom du sa jëkkëram da nga naan bu ko defati ci yow la ko gissé ci yow. la ka la ka la ka gisee kon dialogue dafa war a permanent muy waxtaan ak njaboot gi waaye tamit surtout di laayante laayante laayante laayante laayante biir ñu xam ne alquran waxoon nañu ne njaboot yi ak alal yi ay fitna la bi innama amwaalukum wa awlaadukum si njaboot moo yàq seen àdduna dëgg la doom bu ko am xam ne neex na waaye yaral boo yarule rek bu ëllëgee di nga ci am rëcc boo xamante ni di nga wér sa buruxal di jooy te doo ko mën a wax kenn ab xale kon bëggul sa doom jooy kenn bëggul sa doom bëgg dara te du ko am kenn sa doom bëggul nangam te du ko nangam mais yooyu yëpp di ko kat def day nekk loo xamante ni dina ko yar ci àddina tey sa doom saa yu soxlee cent franc nga ne ko jëlal saa yu soxlee deux cent nga ne jëlal parce que am nga ko man nga ko du noonu léeg-léeg ñu bëgg dara nga xañ ko pour mu xam ne àddina du loo bëgg rek da nga koy am wala na ko bëggee wala fa nga ko bëggee bu ëllëgee bu ko amulee gisu ko te yàgg ko tamaloon gisatu la boo moytuwul dina dem di ko utee ji neneen waaye boo ko jàngalee muñ wante ne nit du loo bëgg rek tey tey tey dañ koy am donte am nga moyens yi loolu itam day nekk benn point boo xamante ni bu am solo